asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 29 avril 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb la nañ xëy doore ko tey yëglikaay ba nag tey fa mu xëy ñëw wala ka mu koy séqal ay wax moo di ka xam ne nii moo di Zil Balde ci xëtam mu njëkk mu nga taxaw ko rakk ja Ama Balde di ko solal gàllaaj Ibakan nag moo wax ak moom ci combat Ama ak Modou la ko Zil tontu nag lenn la ne na ko fi mu nekk nii daal li am ba des moom jàppal tëggi tama ak xesanu mënuñoo ànd maanaam fu ñuy feesa daal kenn du fa ñëw di fa jooy ab góom loolu mooy waxi ki nga xam ne nii moo di Jules Baldé loolu la tontu Iba Kane xamal na ko ne daal diggante Ama ak Modou Lo moom Jules ne na ko fi mu tal combat ci boppam la kenn deful xanaa kay leneen les tal waaye du ay waxi lamb ak i bëre na fi mu nekk nii moom combat bi benn combat la ne na xeex bi kenn la ñuy xeexal mooy coronavirus bi nees di def ba jëlee ko ci àddina bi rawatina Sénégal waaye waxi lamb moom Jules daa jàpp ne fi mu nekk nii moom li am ba des moom dañ koy tegee ne maanaam stand by ko ba ci kanam loolu mooy waxi ki nga xam ne nii moo di Jules Baldé keneen koo xam ne nii moom Pikine googu la dëkk di Pape Diop Boston xëy na moom tamit seq ak yëglikaay bi waxtaan wu yaatoo yaatu Pape Diop nag ñëw na ci defetu Eumeu Sène ba ak la ko ko yóbbee jàpp na ne daal lii nga xam ne nii moom moo di vitesse ak précipitation la jaawale maanaam daal fii la war la Eumeu Sène jaawale la war a dem mu yóbbu ko plus la war a dem plus mu def ko moyenne jàpp na ne kon xëy na lii nga xam ne nii moo ko dal loolu ko ko yóbbee ak itam jàpp na ne kii di Modou Lo moom bête noire ka nga xam ne nii moo di Eumeu Sène la loolu waxi Pape Diop Boston la nee na fi mu nekk nii daal na jàpp jàpp na ne daal tamit xëy na bés mën naa ñëw moom lii di couronne roi des arènes bi ñëwaat Pikine maanaam es andi ko fa waaye daal jàpp na ne ëmam moom moodu bête noire la te nee xoolal li neex foofa kat mooy ki nga xam ne moo di moodu Pape Diop bos nay wax na ma ne ko daan ko waaye dana jàppal ba tey moom Pape Diop kat yi Balla Gaye de fu ko fekk maal ma ne ko daan ko ne na kon làmb mu ngi noonu ñu ne ko waa sa feebar ba nag après làmb ji mu ne feebar ba moom la am kere daal mooy ba defet ba amee moom ne na ci otom la dugg waaye daal li am solo na ne kere moom ah metti na trop trop ci moom ndax nag la dal problème moom metti na lool lool ci moom ba sax xamatul woon moom fa mu nekk waaye nag jàpp na ne feebaram booba loola juru ko ndax nee na làmb moom lu ci mën na cee am lépp ci mën a am lu ne lañ ciy xaar waaye kay nee na da doon dox bali yàgg am lu ko teq ak fil goo xam ne nii ña doon def direct ba seenum télé la mu dal di daanu mbir ma nag dal di feebar boo xam ne daloon na ko ca koor ak daaw ga nee na loola moo ko ko yóbbee waaye nag nee na feebar ba moom wéetu ca ndax la laaj nañ ko ndax taxawu nañ la mu ne xaritam bi nga xam ne nii moo di Bamba Njaay daal moo fexe ba boole ko ak président Macky Sall Macky Sall taxawu ko ci wàllum faj ma moo soxnaam Marème fay sal def ca ay millions yu baree baree bari ba nga xam ne nii daal moom Pape Diop taxawaat na waa laa ma ja tamit nee na suñu ginnaaw ndax màng 2 ak association ñëw nañu seet si ko Tafa Gueye noonu ku ci nekk dugal ci sa loxo loolu mooy waxee ka nga xam ne nii moo di Pape Diop ñu ne ko Alioune Sarr mi nga xam ne nii coow dox na boog digganteem ak arbitre yi wala boog waa CNG ci seen bopp ak kuréel ga ba ñu dàq Sitor Ndour moom Pape Diop Boston jàpp na ne dàq moom ga ñu def Sitor Ndour ak ña mu àndal moom ne na àndu ci tey suba wax yi noppi ndax nag ne ak lu mën a xew moom waree son na mën a def leneen lu dul loolu ne na xamul mbir ma nu mu demee waaye dàq ga moom àndu ca ndax nag daa jàpp ne Sitor moom nekk na nit koo xam ne nii tey ci làmb ah am na ci place boo xam ne day te gis la boo xam ne bu mag a mag la ci làmb kon ne na daal waree sudu xëy rek dàqe ko noonu mu dem waaye Alioune Sarr itam nee na ñi koy dox di mbamb ak di ko coow Pape Diop daa jàpp ne dañ ko war a bàyyi te bàyyi li ñuy def ndax nee na lu mënti xew def na ci làmb loo xam ne kenn mënatu ko fàtt nee na li ñu war a def kay mooy xanaa xool bés buy dem nuñ koy yóbboo ci demin bu rafet maanaam sargal ko ministre bi def ko mu génn waaye nee moo gën wax ji nga xam ne nii ñu ngi koy wax boobu ba tey di ko mbam guddi ak bëccëg loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moo di Pape Diop Boston mu mel ni ki nag diggante arbitre moom ak ña nga xam ne nii ñoom ñooy waa waa CNG ba moom jàppal yëglikaay bi ne day xeex mënu faa ñàkk de nee na foofu moom li am ba des moom xeex deesu ko fa mën a ñàkk amal parce que nag diggante la boo xam ne nii faw ñu laale loolu mooy wax yëglikaay bi keneen koo xam ne wala ba tey bu nu tasee ci mbir moomu am na koo xam ne nii moom dafa xëy bind ab lettre lettre ouverte daal la ko tudde moom ki nga xam ne nii moo di Tidiane Kassé jàpp na ne daal Aline Sarr daa mel ni moom lay waxal ne na ko 26 ans bari na dafa ëpp waay ne na ko 26 ans doy na nag na lool lool loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di nga xam ne moo di kase loolu la koy wax tey keneen koo xam ne nii moom moom itam dafa mel ni feebaroon na juróom-benn at yoo xam ne daal boo xoolee bëriwu ko muy doomu jalaw yëglikaay bi ñëw na tey ci moom moom mi nga xam ne nii mooy Assane Wàllu Gay andil ñu ko keneen koo xam ne nii moom combat amoon na ko war koo bëre waaye balaa mu koy bëre fi mu nekk nii wala ba tey jii mënagul a fexe ba bëre ko jàpp nañ ko ñaari yoon combat ba dàqu muy mbañi kayre di doomi booy kayre mu mel ni que nag fi mu nekk nii mu nga beru ndànk di boppam keneen koo xam ne moom rës lañ koy wax rës moom ab xale la waaye ña mu ciblé aada faas la wax ak Mbagnick Kaïré ma ñu tudd léegi moom daal am xelam ci ñooñu nga xam ne nii moom la ñu tudd ca la ne moom rës keneen koo xam ne nii moom wala beneen écrit boo xam ne nii mu nga ca fa la ñuy dellu muy fa nga xam ne nii moo di record a xëy ñëw jàngatal ñu école de lutte Falaye ak seen ñaari victoire ak seen ñaari défaite mu mel ni nag ñoom daal fi saison bi commencé fi mu tax wàcc la ñu def ba ca suufa suufa suuf yëglikaay bi tuddee ko réussite boo xam ne cinquante pour cent la Ama Baldé moom ñaari sason ngi yoo xam ne takkul ngem bëre ci làmb làmb ji muy lu doy waar te yëgle kaay li ci gën a doy waar tafaatin la bañ dem jëli ki nga xam ne ni moo di moo mooduloo mel ni ki nag bu doon day joué moom wala muy julla daa mel ni est-ce que perte moo koy yoot record a xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom record xëy na tey ñëw seq ak moom ay wax ci koor gi ak na mu koy dunde muy premier tigre de mbay géey mbay nag la mu xam ne daal nee na mois de ramadan bi moom ni mu koy dunde daal jàppal nee na am na loo xam ne daal maanaam daal xëy na di julli ak a ñaan boo nga xam ne nii guddi na ak yu mel ne kii noonu waaye tamit toog biir këram daal ci famem nee na loolu da koy def waaye ceebu jën ba itam daal ah nee na daal na mu koy jëlee moom da koy neex torop torop ak ay fruits ak ay jus Dakar nee na yooyu daal yu ko intéressé la mbay géey de mooy wax magi Tafa Gueye nee na tamit bu ca paree moom émission bii di daw ca TFM ñu koy wax quartier général nee na mënu koo rate faw daal mu seetaan ko loolu mooy wax nga xam ne nii moom moo di mbay gi ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di la koor ba tey bu nu demee fa nga xam ne nag moo di la tribune moom jàppal bu dee am na ñoo xam ne dañ leen a confiné wala ñu confiné nit ñi moom ki nga xam ne nii moo di la tribune lam ñu xamal daal ne na diggante Balla gay numéro 2 ak Boy Niang booba combat moom confiné nañ ko ba prochaine saison maanaam saison bi nga xam ne ca la ñu jëm li tax ñu confiné nit ñi nag muy corona bi yàlla na jeex te dem ak jàmm waaye itam du ñu dañ di ko wax de ñii nga xam ne dañuy doxee nu leen neexe maanaam daal yow jàpp nga ne fu la neex war nga faa dem te feebar buy wàllu wër àddina bi ngay def la la neex yaakaar naa nag yàgg ku dëkkee def li la neex bés dina ñëw mbir dal sa kaw te bu keree goy doo ko mën a faj te defe naa yem baax na ngir lan fexe xeex ak corona bi dimbali sunu bopp dimbali sunu askan ngir mu jóge fi te yàlla rek tax. mbokk yi ñuy siiw ci Leewtoo TV Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Birama ah, di nuyu internet Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a si àddina bi leen si aar di leen ñaanal jàmm di ko saako si ñoom. amina ci topp ñu ñaan rek corona bi jóge fi ci jàmm ak salaam Babacar. waaw corona bi moom yàlla na ko fi yàlla jële jële ko si àddina bi yëpp mu dem ba jeex tàkk barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla na ko def waaye tamit ndimbal da cee fekk loxool borom rek waa ndax yàlla moom euh, comme li ñuy wax rek du yor kenn nii ci loxo ni la am jëlal lépp lu mu mën a doon lu nit ki bu koy ut am ci àddinaam mooy def ay effort ginnaaw bu la yàlla sàkkee def leen may la am xel ak kàttan yaay def ay effort pour am yow li nga soxla li nga war a dunde ak li ngay ne waaw boo feebaree yaay faj sa yaay faju ji yaay gis sewar tam moytu ko kon defe naa nañu moytu te chaque jour wax ji ñëpp a koy wax télé yaa ngi rajo yi di wax yi di bind internet bi di wax kon defe naa ne mbir mi fi mu nekk nii kenn du ne dégguma ko xanaa kay da nga naan dégg naa ko mais naa def li ma neex loolu nag koy def a ah, comme ni ma wax rek waaw mbir moom saa yoo doyen na damay def li ma neex wala ni ma ko bëggee laa koy defee lijjantewuma kenn jàppal ne bés dana ñëw mbir dal la mbir moo xam ne bu keroog yow képp koy wéete kon encore une fois nañu moytu nañu moytu encore une fois te itam wàññi suñu dem ak suñu dikk ci lu amul farata yaa ngi dégg autorité yi tamit vraiment ah seen taxawaay rafet na waaye nañ ko gën a yokk nañ ko gën a yokk parce tamit ak lu mën a xew mooy li nga xam ne nii mooy dund bi nga xam ne moom la ñuy wax boobu ba tey xëy na nit ñi xaw nañ ko yàkkamti par rapport ak tey ñu nekk ci yenn zone yi nga xam ne nii parce que dañ naan àll bi àll bi mais Dakar gii ñu ne am na fi ñoo xam ne nii yàlla xam na ne sax waa àll ba est-ce que tanewuñ leen yaa dégg kon mbir yi fu nekk la ci li di baxee yaa ngi dégg fu ne la affaire bi di yëngutoo daal fi mu nekk nii mais nag yàlla mi nga xam ne moom moo tege yàlla na teggi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbal alamin eh, ñu ñëw sunu lamb sunu lamb moom dafa xëy ak ñun ak Jules Balde Jules Balde daal nee na combat amul dara amul fu mu ne daal benn combat mu am mooy daan corona. waaw parce que a ko doon xam naa laaj ci diggante am ak Modou Lo waaye Jules moom tontu ba dafa ni guddul parce que nee na fi mu nekk nii ñoom taluñu waxi làmb li ñu tal mooy xeexum corona bi defe naa nag loolu moo xam nag mooy actuellement bit bi ci àddina bi yëpp moom la ñëpp di xeex rawatina nag Sénégal yeneen moom bu ñu koy wax la Père Max rek waaw maanaam nee na bu jàmm amulee dëkk sax day xat day xat waxatuma laa kër yaa ngi dégg kon defe naa ne mooy li am actuellement nii euh, feebar feeg jógewu fi moom leneen leneen la ñuy wax waaye pas ay nangam sangam quoi kon defe naa loolu ma xet xel nangu na ko actuellement moom benn affaire a am mooy coronavirus bi yàlla na ko fi yàlla jële am na ciy topp ñu delluwaat Pikine ba léegi rek dem ci le grand champion Pape Diop champion d'Afrique bi mu wax lu bari ci li nga xam ne mu jaar na ci am seen ak li tax mu ñàkk combat am diggante moom Modou Lo ak roi des arènes bi yëpp ndax dina ko jëlaatam déet waaw vitesse day ak précipitation la wax ne moom bokk na ci li ko ko xaj waaw loolu nag defe naa ne mooy ñàkk a xàmme yow fi nga war a waaxoo ak fi nga war a dawe yaakaar naa su ma juum waaw mel ni kon euh, dafa nag suy ñëw ci mbër mu mag suñu mbër sax laay wax day ñëw Pape Diop Boston ñu koy nuyu dugg si di ñaan yàlla wéral ko parce que tëddoon na feebar ay weer ngi nii am na benn moo gis nañ ne taxawu nañ ko ci wàllu moo dem ak yooyu ba ci tan na ko yàlla yokk di ko ñaan képp ku wér di bu loo xam ne ni ñaari mbër yi comme li ma yàgg di wax rek Eumeu ak Modou seen maanaam ni ñuy bëree dafa déggoogul ni ñuy bëree dafa déggoogul dafa xoolee combat mu njëkk ba tout le temps ëmma mu ngi serse ji Modou Lo ci xeex ci bëre di ko serse te mu Modou saa yoo koy serse ji te amuloo argument yu wóor dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ngi ci problème oo xoole nag loola moo feeñaat ci seen deuxième mu Modou mel ni ko amélioré nag lañ daan defante maanaam bi yoon jàpp na ne xëy war na ko mën a dóor benn korose mu daanu moo tax bi ëmma lewato bi yàggee ëmma nag bëgg a jóg jëli Modou esquivé ko génn dóor ko korose droite mu mu mu mu wàcc mu lay war ne daal làmb la woon ëmma seen mbër bu bu mais nag Pape Diouf Boston itam li mu wax yaakaar na ne am na fu mu ko teg. mais daal bête noire am la te boo seetloo dafa mel ni la am ci Modou Lo Balla moo am ci Modou Lo ak Eumeu moo am tam ci Balla ak euh, ki nga xam mooy Eumeu. waaw noonu la demee ñoom ñett ku ne da nga daan sa morom ñaari yoon kon mën nañ ne ku ci sa morom sa bête noire la waaw loolu nag mooy sport waaw waaw loolu mooy sport ah. waaw mooy xëy na mën na ñëw bu ñu defee du ñàkk benn bés ñëw ñoom ñett ñooñu du ci am ku ci ñàkk bëri trois ko bàyyi ak sa morom ndax loolu day dakk wala déet ñu def ko label mel ni box ba waaye dañuy demaat rek ci fi nga xam ne mooy CNG ba léegi kii di kase daal wax lu bëri ci Alioune Sarr de 26 ans daal doy na. waaw moom nee na ko 26 ans de pouvoir daal la jàpp ne doy na ah loolu nag comme li ñuy wax rek maanaam mbir moom. Mm, la ma waxoon démb laa ciy waxaat rek euh, kii dem na dem ngir intérêt lamb kii ñëw na ñëw ngir intérêt lamb kii toog na toog ngir intérêt lamb kon daal li ñu ciy wax léegi mooy nañu def ngir intérêt lamb rek Alioune Sarr nag encore une boo xam ne tey ci lamb lu waay waxati waxati am na lu mu servir lamb lu bare bare bare matali nag moo mënta ne waaye li ci am solo nag mi mi tamit nañ fexe mu rafet rek nañ fexe mu rafet parce que xam nga institution yi maanaam ñun ñoo ko fi def ay nit la ñu mooy kuréel yeeg lu mu mënta doon ñooñu nag suñu diggante nañ fexe mu rafet dëgg la Babacar ba léegi CNG ba diggante seen diggante ak arbitre ñoom Sitor ak ñoom seen ñooy daal ba léegi daal yi fi des na coow. waaw doy na waar waaye yàlla def daal compréhension am wala leneen am ba jàmm mën a dellu si parce que ñoom Sitor mérité wuñu encore une fois wax dëgg yàlla loolu ñu leen def loolu ku ne xamal na ko sa bopp mérité wuñ ko parce que li tax mooy dañuy yàgg ci làmb ji di jël ay risque di arbitrer làmb te làmb ku ne xam na li ci nekk kon defe naa am nañ droit laaj la ñuy laaj waaye nag laaj ko ñu rajo leen wala ñu aj leen defe naa ne warul woon a demee noonu te defe naa loolu sénégalais yi du man rek ko wax ñu ko nag ñu ngi wax ñi jiite ak ñoom arbitre yi na leen yàlla di am xel ak xol ba ñu mën a toogaat waxtaan bu trouver solution pour ñuy tegaat ku ne jël la nga daan def amin amin ci itam Babacar la tribune de moom dafa ñëw ak digg ci confinement bi ak combat mu ne combat ba léegi ak euh, kii nga xam ne moom booy ñaar daal dafa mel ni moom dëgg-dëgg moom mooy confinement waaw moom ne dañ koy confiné mo saison nag moo wax loolu bëri woon na coow waaye daal yaakaar naa ne ba tey ak taxaw moom jafe moom nag daa jàpp ne confinement lañ la koy tudde ba saison prochaine waaye ñu nuyu groupe des médias yëpp rawatina suñu xarit bi binde boobu wàllum làmb di Pape Moussa maa koy nuyu bu baax a baax waaw ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu sa xarit nag Saliou Khoule ah waaye ki nga xam ne moom mooy wax na lu bëree bëree bëri ci fi nga xam ne mooy record yëglekaay waaye itam moom def ni fi nga yéen parce yam ci wax ci lekk yeeg yooyu. waaw <laughs> suñu père ñu koy nuyu di ko siyaara waaw moom daal ñëw na ci record tey wax naan na fa ak Abou Ndour waaye ci wàllu koor gi ni mu koy dundee ba xam nga ak famem toog ak famem ak yu mel ne ki noonu ah ndogo bi tamit nee na daal ceebu jën bi moom xam naa ne moom du ko awale aw yoon <laughs> waaw si itam si Dakar bëgg na ko waaw loolu la père wax tey waaw muy koo xam ne moom tamit icône la si suñ koy gis muy wax dañuy kontaan parce que mag ñooñu dañuy leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi ay Mbaye Guèye ay Pape Diop ay Boy Bambara ay Père Balla Gaye Ndour ay Mahamad Ali bu ñu limee ngi dégg ñoom mag yi parce que dañu xàll yoon bi mu méttee ñoom ñoo ko jàll ba tey xale yi mën a ñëw ci na tey nga nekk dara ci li nga nañ fi yàgg fi wér daal. am nañu ci waaye record daal yemul foofu nag ñu ngi ñu ngi ci di fii di écurie Falaye Baldé. deux combats deux victoires. muy réussite la diggante saison bi ubbi fi mu taxawee dem jëli Modou Lô yëgle kay xëy na jàpp na ne <laughs> baax ñëpp ñu ñuy suivre ci euh, internet bi rawatina waa diaspora bi waa Amérique ñu ngi leen nuyu baax a baax waa Michigan waa Italie ñoom Ibras Touba Tepaat ñoom Mod Badiane waaye itam nuyu baax Ibra Saalu Lagu Yàlla Pangol seen bu xëy yaay borom anniversaire bi maa ngi koy nuyu baax a baax waaye itam di nuyu yàggumaar taalibi Cheikh Béthio Thioune suñu xel du jóg ci dem ci Cheikh Béthio bu ñu ko gisee rek suñu xel dem ci moom waaye nu ngi ko koy jaalewaat bu baax di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram ca bar sax te tax ci barkeem ak mboolem ñu fa fekk yëpp waaye daal feebar bi yàlla na dem ak jàmbaaw amin biram amin la ñuy wax di nuyu comme ni nga ko waxee nag euh, yàgg mar comme ni nga xam ne ci caméra bi ah di ko nuyu di nuyu euh, ki nga xam ne nii wala boog di ko euh, jaalewaat sangam comme ni ñu ko waxee Cheikh Béthio yàlla yàlla yokk leeram taas ñu si barkeem barke Nabi bi sallallahu alayhi wasallam ndax itam diggante ak Serigne defe naa ku ne war nga cee jàngi sa diggante ak doomu aadama bi ci war a am waaw defe naa ne loolu leçon la buñ ci war a jàngate nit ki du da nga koy topp nii rek mais ay trace am day ci bàyyi xel li mu daan def yaa ngi dégg parce que defantu baaxul te diggante ak sëñ Saliou yaakaar naa ne ku ne gis na ne defantu amu ci woon moo tax ba li ci am am ci kon yàlla yàlla yokk ay leeram waaw di ñaan yàlla fii des tey di doomam di sëñ Saliou Thioune yàlla na ko fi yàlla bàyyi barke nañ ci sala ak njaboot gi yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy à travers le monde fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm rawatina Moodu Moodu yi encore une fois man moom ay jàmbaar ngeen Moodu Moodu jàmbaar koy doon parce que ki takk ndiggam dem Europe wala États-Unis wala Brésil wala fu mu mën a wala Afrique ci fu mu mën a nekk ci àddina bi xeex yi dara ngir uti dara ngir indi dundal njabootam kooku defe naa li ñu koy ñaanal yàlla rek mooy fanu gudd ak wér gu yaram te yàlla di leen musal ci taamaal ak i musiba parce que itam ñoom kenn amul seen fay maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñoom am so bu garga ngañ sow kentoki ñoom tuuti yaay Sarr xam nga ñoom Benzema dem ñoom Ndonga Fall sama xarit ba ka nga xam ne nii moom mooy Habib Ndoy ak tamit sama rakk Youssou Ndoy l'international maa ngi koy nuyu ak Saliou l'international di nuyu képp ku ñu si sama waa dëkk itam leen fàtte waa ak yaay yëpp maa ngi koy bëgg bu baax a baax a baax di nuyu sama maire commune maître Pape Sène yoo xam ne corona bi gis naa nañ ko songe ci commune ba yàlla na yàlla def daal comme duggagu fa yàlla bu mu fa dugg waaye fi mu dugg yàlla na fa génn barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Babacar noonu lañ